gërëm ñëpp di jiital ci sant gi suñ sëriñ si nga xamante ne ñooy njabootu Maolana Cheikh Ibrahim nga xamante ne Baay moo ñu yee ci ñoom wax ñu ne ay wëlu yu lañ te Baay Ñas radiyallahu anhu waxam ñépp xam nañ ne bakkan nekku ci ndax wasama waral xaq li maa law saqartoo yoroo ko dimaa yi man aqoolu mu waaliya Baye Niass yàlla da ko yóbbu ci niveau yu mag niveau yoo xamante ne xel dafa jéggi xel kon njabootam gi buñ teewee ku ci mag euh, muy Cheikh Papa Mahdi Ibrahima ñas nga xamante ne ñu ngi koy nuyu du ko ziyaara ci disponibilité yi nga xamante ne am na ko ak nu mu jàppee taalibe yi ak nu mu leen di dimbalee ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di teg ci nuyoo bi papa mun xamina Ibrahima ñas mu nga xamante ne bés bi ba tàmbalee ba tey mu ngi ciy teew te dëgg-dëgg sonal nañ ko ci lool waaye mu am yittey taalibe yi tey mooy président Ansaaru Diin maanaam képp kuy taalibe Baay Ñas rek tey ci ginnaaw nga nekk ndax moom la sëriñ bi fàll mu jiite taalibe yi ba mu toogee ci loolu ba léegi di ci def liggéey bu am solo kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ci oyofam ak bëgg taalibe mi ak du ñuy dimbale. di nuyu papa Safiou nga xamante ne ñun dañ koo sopp lool mu nekk nit ku baax di doomi Cheikh Ibrahim ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko wax ne ko ahlan wa sahlan di nuyu doomi Mawlana Cheikh Ibrahim ba léegi. muy Cheikh Abdoul Malick Ibrahima Niass mi nga xamante ne dëgg-dëgg liggéeyam ci faydu bi ak mbëggeelam ci taalibe yi ak góorgóorlu gu muy def ngir xirtal nit ñi ci bëgg bàyyi dëgg-dëgg ñëpp war nañ ko cee félicité waaye itam war nañ ko bàyyi xel ñu ngi koy nuyu di ko ziara bu nuyoo doomi Baye Niass yi nag dañ ciy dugalaale képp kuy sëtu Maolana Cheikh Ibrahim nga xamante ne mu ngi teew ci jataay bi waaye itam balaa ma dem ci sët yi damay dem ci doomu mi jigéen yi mi nga xamante ne Seyda Nday Ayda moom nga xam ne bës bii bésam la ñu ngi koy nuyu ci disponibilité bi nga xamante ne am na ko ci digganteem ak taalibe yi ak yërmaane gu am si ñoom oyof gi nga xamante ne bu ñëwee dakaar dana xool taalibe yeeg mbokk yeeg ñépp fasante couleur ak ñoom ba pare di leen dimbale ndax ma damaa gis ne doomi bàññees bu la jegesee rek dalaa bëgg a dimbale kon ñu ngi koy nuyu di nuyu Sayda Uma Motu di nuyu Sayda Mariama di nuyu di nuyu di nuyu mboolem njabootu Baye ñas gu fi teew waaye su ma nuyoo ñetti soxna yooyu nga xam ne ay doomi Baye Niass lañ rek yaakaar naa képp kuy jigéen nekk sotu Cheikh Ibrahim nuyu naa la papa arabi Niass ñu ngi may dee léegi na ma mu ci jotaay bi moom sama papa la di nit ku baax di nit ku bëgg taalibe yi ñu ngi koy ziyaara bu baax sotu Baye Niass nag maa ngi nuyu Sayda Habidine mi nga xamante ne bés bi ba jotee ba léegi du toog du fanaanal du yendal chaque jour rek mu ngi ci yittey bés bi kon ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel tamit Seydi Aliou Diop mi nga xamante ne sët la ci baay moom tamit bés bi sonn na ci trop Baye Mbaye MC teewu fi wala teewagut xam naa dina ñëw moom tam maa ngi koy ziara di sama xarit di sama sëriñ di sama féetee maa ngi koy nuyu di ko ziara su ma nuyu ñëpp maa ngi koy jël nag di ko yóbbante ci xalifa bi nga xamante ne mu ngi fii ba Maroc di ko ziara moom tamit di ko ndokkeel di nuyu itam sama mbokk yi nga xamante ne mooy samay mbokk mu xaddam nekk ci jataay bi su ma nuyoo yaakaar naa eh, day xaw a sori ndax daanaka tànt bi ci kaw yëpp ay mu xaddam lañ waaye dama ciy tànn kenn rek nga xamante ne bokk na ci parrain yi wala ñett ñoo xam ne bokk nañ ci parrain yi muy Cheikh eh, eh, Thierno Amane Ndiaye di suñ sëriñ nekk ku ñu yar ku ñu dimbale ci ci lu yàgg ba pare responsable daf ñu ay responsable si ñun depuis 2009 mënuñu dem leen ngeen liggéeyal Baay Ñas dem leen Maroc ngeen nekk fa ngeen liggéeyal Baay dem leen Gàmbi ngeen liggéeyal Baay waaye comme man yàlla dafa maa nattu ma xaw a xaw a nekk ci ay yitte ma ñëw rek toog Sénégal fii nekk ci liggéey bi maa ngi koy ziara bu baax Corno di la ñaanal yàlla fan wu gudd bu ànd ak wér ak sa njaboot yëpp di nuyu tam Corno Ibrahima Diallo ci disponibilité am ak ci bëgg nit di ko baax maa ngi koy nuyu di ko ziara di ziara sama xarit nga xamante ne ñoo bokk benn dëkk Cheikh Kaba Bakhoum di sama xarit di sama wóllëre di nit ku baax maa ngi koy nuyu di ko ndokkeel di ko ziara su ma jógee ci ñooñ ñëpp nag damay gërëm sama papa bi nga xamante ne mu ngi toog ci tànt bi muy Mamour Cissé di ko bëgg sëriñ Touba di taalibeem nga xamante ne lii may liggéeyal baañas damay wax ne su ko neexutoon du ma ne du ko def waaye dinaa ci xool nu ma ciy defee ndax nit ku ne sa waajur nga am waaye sama liggéeyal Bañas bi dama ci encouragé di ma ci dimbale maa ngi koy nuyu ak képp koo xamante ne mu ngi ànd ak moom su ma limee itam day xaw a bëri ndax moom daanaka ay oto la àndal ñëw ci dëkk bi maa ngi nuyu itam ñi nga xamante ne son excellence monsieur le président ñoom la yónni si jotaay bi su ma ci tuddee ñaar rek tudd naa ñëpp mooy monsieur Arona Coumba Ndoffène nga xamante ne nit ku baax la ak sama xaritu bopp di ko sonn ci bës bi nga xamante ne du toog ñaari fanta ñëwul sama kër mooy monsieur ministre Isma Diom maa ngi lay nuyu sa taxawaay ci bés bi gis naa ko euh, sa liggéey itam gis naa ko maa ngi lay sant di la gërëm yaak sa soxna di nuyu itam monsieur Diène Farba Sarr xam naa ne teewul si jotaay bi waaye ku ku ku ma sopp la tam kuy taxaw samay mbir la maa ngi koy nuyu di ko gërëm di nuyu aussi son excellence Moustapha Cissé di nit ku baax di nitu dëgg di ko ndokkeel ci liggéey bu am solo bu muy def ci réew mi nga xamante ne moom nitu diine yëpp la bëgg keroog dama koo fekk Kossy dama tiit sax dama ne eh, Moustapha Cissé Lo ku la xoolal fu Kossy nekk waaye dem na ba ñëw fi ngir fasante kóllëre nit ñi rek ak dimbalante ñoom kon loolu ñu la ci ndokkeel son excellence du nuyu nag sama wëlëre bopp nga xamante ne ñu bëri dañu jàpp ne xamee léegi la mooy Moussa Mame Boye Diao nga xamante ne sama diggante ak moom diggante bu xaw a yàgg la eh, muy sama wëlëre di sama nit nit boo demee ci dëkkam dégg nga xam ko mu xam la nga am loo xam ci moom moom tam dëgg dëgg sa mbir gàttantuwu ci di ci la dimbale di jàppalante ak yow ci lu bëree bëri bëri ñuy jàppalanteem kooku wax dëgg fa yàlla bu bàyyi itam yëpp ñëw ci jataay bi dañ ko war a sant di ko gërëm monsieur euh, directeur euh, Mame Boye ñu ngi lay nuyu sa taxawaay ci bés bi rafet na sa taxawaay su ñun tam rafet na ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu aussi samay soxna ndax bés bii boo koy taxawal guddeeg bëccëg subaa ngoon yaa ngi ci àll bi yaa ngi dox man bu dul loo sax daanaka sama yittey njaboot awma ko samay njaboot ak samay soxna damay wax léeg-léeg ne yow ñun mën na laa seddal bëgg bàyyi ndax ñun bu ñu amee soxla nga gàttanju ko te dañaa gis na bu bàyyi xewlee lépp loo am ak loo amut ak lu nit ñi am sax da koy jël def ko ci bàyyi te dëgg-dëgg man sama jàpp na sama am yépp bàyyi sa ko moom damaa jàpp na lu ma xam lépp bàyyi sa ko moom ndax dama gëm ne Baye Niass bu du doon ak mom duma ma nekk Cheikh Baye Cissé dama gëm ne su nekkutoon Baye duñ ma sukkal duñ ma ramal sama cër bi nga xamantene mom lañ may nit ñi di xolé duñ ma jox kon munu ma wax lu dul jërëjëfee Baye Niass munu maa wax lu dul jërëjëfee Baye Niass munu wax tam lu dul jërëjëfee Baye Niass te na ndaw ñi gëmat seen bopp ndaw ñi nañ gëmat seen bopp gis nga bo amé mag ñu melni Cheikh Ibrahim ci réew mi nga xamantene tayba min taybati usdi ila sawairi wa anta tadri batini wa zahiri naalamuna man qad ataani awalan wa aqiran ya aqira ya awala Baay Ñas dëkk bu juddoo dëkk bu sell la dëkk bu bu màgg la te ñu bëri réere ko damay wax taaliba yi nañ dem ci barab yu Cheikh Ibrahim doon nokki ñu fay dem di nokki di jaamu yàlla dellu ci mag ñi ci lu ñu ba pare nañ gëm seen bopp ndax réew boo ci nekkee looy gëm mooy di mos yi nga xamante ne boo ko mosee da ngay jàpp da ngay fàtte sa jafe-jafe yi mooy toxicomane yi nga xamante ne ñu ngi jël yu ne ngir fàtte seen jafe-jafe ak seen gàllankoor yi dama ne loolu du solution bi solution bi bàñaas la nañ ñëw jël tarixa tijaan ñëw mos faydu bi suñ ko mosee dañ xam ne dëgg dëgg problème bu nekkee daf ko attunut ñëwal ci Cheikh Sabrahim mu fexe ba yóbbu ci niveau boo xamante ne loo mun a gis da koy mun a dékku waaye di wax ne nañ bàyyi tey xale yi ku màgg bëgg a génn réew mi boo génnee nag naan foofu nga mun a teddee te Baay Ñas dafa waxoon ne fu mu dem njëriñ la fa yóbbu Baay Ñas bëri nañu génn uti njëriñ ci beneen réew waaye Baay Ñas fu mu demoon rek njëriñ la yóbbu woon te kooku benn saalum saalum la koo xamante ne Tayba la juddoo fii la màggee fii la jàngee léppam fii la lu mu am tam ci réew mi la ko indi kon xale yi ñàkkuñ kuñ roy yi man ku mu leen di royloo mooy Cheikh Ibrahim ndaw ñi ñëpp ndaw Sénégal yi yëpp maa ngi di ndawloo maa ngi leen di reyloo Cheikh Ibrahim mi nga xamante ne ku ko rey di nga ibbeeku di am jàmm di jub di am xam-xam aw jadani xaqan li jaweril kasri fi indi nu wakkilu sirri sirri bàyyi ñes mu ne mooy jang damu damu yi damu damu yi nag ci diina bëri na jang damu damu yi ci aqiqa bëri na nay nii laysa min nii wala min tariqi fi sey in bàyyi soxla soxlawut ñaari xeeti taalibe yi taalibe bu xamut yàlla ak taalibe boo xamante ne bu xamee yàlla tam amut amut ràññee kon nañ nekk xaarif laa nekk ay taaliba Cheikh Ibrahim nañ jublu Baay Ñas nañ bëgg Baay Ñas wax ji bëri na eh, eh, dàgg sant bi ci bëri na waaye lu gën a am solo mooy jëfal Cheikh Ibrahim nañ jëfal Baay ndaw ñëpp ma ngi leen di oo ci jëfal Baay nañ bàyyi wax ji te liggéeyal Baay ci loolu laa leen di oo nañ kenn ku nekk si ñun na xool nu mu góorgóorloo xool nu mu liggéeyal bàyyi ndax bëri na lu fi nekk Baay Ñas moo ko fi bàyyi ñun defal guñ ko dara depuis 1975 ba léegi ay wax rek ay wax rek wax nag war na fee jógee ñu commencé jëf kon ndaw ñi nañ jëfal Baye Niass inna la si na xaddamoo nii naa la muraadahum ma ne ndaw ñi ku bugg ndam ku bugg jàmm liggéeyal Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfatee Baye Niass na ndaw ñëpp uti Cheikh Ibrahim maa ngi daanelee kàddu yi foofu nag di nuyu son excellence son euh, son excellence monsieur l'ambassadeur muy Moussa Ndour mi nga xamante ne nit ku baax la nit ku

ko te nit amul lu lu lu ko yëg te dëgg-dëgg loolu def na ko maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi toog ci micro bi nag soxna Aida gërëm naa la ci taxawaay bi ak ci jëkkër yu neex yi ak ñi ko toogal ñëpp di nuyu samay xarit samay wóllëre samay rakk ñoom bàcc Cissé ñoom saala ñu ma jàppale ci liggéey beeg ñëpp mbokku taalibe yi ñoom bàyyi laay ñi nga xamante ne ñoo nekk kër gaak ñi nga xamante ne sori nañ maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi sant samay soxna Zara Cissé ak yaayam déplacé wu nañ ñëw jugee euh, Kaymoor ba fii ñu déplacé wu jugee Kaolack samay goro yëpp ñu ngi fi maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp damay wax ne premier kenn ki première dame laa ooyee kenn ki deuxième dame maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di sant di gërëm di baalu àq di wax jërëjëfee baaña asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mënu maa yàggal nag ndax doomi baaña si ñoom ngeen di déglu ñooy borom xam-xam yi moo tax ñun dañuy gërëm rek bàyyi leen ñoom ñu sànni kàddu si jataay bi ñu ngi sant ñëpp di baalo àq ñëpp di jox ñëpp euh, rendez-vous bi na ñoon lu ma fàtte yaakaar naa ñeneen yi dañ ko mottali jërë ngeen jëf bàlla ñàq